waaw man euh, madame mu Mourina nawaat laa tudd ànd ak fii benn équipe bu hôpital régional ñëw fii si Thialy pour organiser dépistage du cancer du col euh, dépistage du cancer du col bi euh, xëy na Lamine Ndiaye mi ngi nekk doomu Thialy nekk di politique ak ñi mu àndal ñoom Bassirou ñoom ñoo ko financé mais itam ñu am appui technique yu yenn laboratoire yi ba nga xam ne dañu ñëw fii si Thialy pour war ko mën a organiser organiser ko nag. mooy seet jigéenu caali bi nga xam ne ñun fi la ñu bokk euh, nemmeeku li nga xam ne doomu jàngoro yo euh, cancer wala xool loo xam ne ndax mën na jox leen jox cancer ëllëg ndax li may faral di wax feebar bi du ci dépistage de masse lañ koy gisee waaye nañ gis loo xam ne ëllëg mën na leen jox cancer li ñuy wax prévention primaire euh, buñ ci jógee loolu buñ ko gisee yabal leen foo xam ne si cas yu positif dinañ ca mën a xool seen yaram xool leen ba xam jeexitalu feebar bi fan la toll seen yaram su fekkee amul benn lii muy temps yi nga xam ne nag am nañ ci leen luñ ciy sikki sàkka dañuy def li ñuy wax suivi mais heureusement que ni am na yenn yoo xam ne pare nañu pour wàññil njëkk yi ba nga xam ne ni ñu waroon seete mu jafe ci ñoom wala faj bi war a jafe ci ñoom dina nekk lu mucc ayib lu yomb lool ba nga xam ne population bi nañ ci mën a jote comme ni ñu jote ci dépistage de masse bi nga xam ne moom lañ leen defal tey jii Ah, li ñu mën a wax rek tey bi ñu commencé presque 9h la ñu commencé ñu nag équipe bi nga xam ne ay sages-femmes médecins ñoo la ñu àndal ñu bokk hôpital régional ah, mais ah, bi ñu commencé léegi am nañu lu mat juróom fukk yoo xam ne seet nañ leen si juróom fukk bi sant yàlla parce que si juróom fukk bi yëpp li ci positif si ñett lay war a toll mais positif nag taxul ñu wax ne am nañu cancer parce que dañuy continuer rek seet njeexital bi comme ni ma ko waxee fan la toll pour ñu mën a wax mën na am sax ñi bu ñu leen xoolee ñu gis ne dara nekku ci pour que nekkatul cancer ëllëg pour ñu mën ci xam mu nekk faj bu mucc ayib li ñu mën a wax rek mooy nii ñu leen seete noonu la ñuy génn topp bi ci fees hôpital régional ba nga xam ne dina nekk faj bu mucc ayib te duñ ci mën a jëlee loo xam ne dina leen tiital mbaa mu nekk lu leen jaaxal euh, ñi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp euh, waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Thiès di nuyu waa particulièrement waa HLM Thialy Diakhao Euh, ñi ngi am mbégte lool tey jii euh, ci cër bi nga xamante ni moom la fédération euh, des jeunes pour le développement de Thiès initié tudde ñu ko jagleel ñu ko jagleel ko itam jigéenu jaxaaw caali yëpp ñu ngi sant yàlla également ba objectif yi nga xamante ni fixé woon nañ ko par rapport à cette journée bi nga xamante ni moom la ñu duppee désormais les journées médical caali Donc cette année, la première édition journée médicale euh, Tchali 2016. Inch'Allah, am nañu yéene ànd ak fédération des, euh, des jeunes pour le développement euh, de de de Thiès di ko def chaque année. donc mun nañu wàññeendoo ak ñoom muy ren moom mooy l'an 1 des journées médical Thiali. alors euh, ñi ngi ciy bég loolu itam te objectif yi ñu amoon tey jii dañu amoon objectif fu 100 femmes pour dépister leen euh, sur. pour tous les cancers cancer du col cancer du sein euh, ñun suñu yéene sax cancer du euh, du corps rek la woon mais dañ ci ànd ak suñu sœur euh, suñu suñu suñu mag boo xamante ni amuñu luñ ko fayee mu nii na waat te nekk hôpital régional ñëpp xam ko ci euh, dans le domaine de la santé jàpp ci nañu nag moom du yam sax ci def dépistage cancer de du col rek alors dépistage cancer yëpp la ñuy def jigéen ñi ñëw nañu ce matin ba fii vraiment fee mu ngi feesoon dell jigéen ñi dañuy ñëw consulter wu daal di fiy jógee ku ci consulter wu mun a ñibbi bi euh, dem toggi euh, def say activité kër donc euh, ñi ngi am mbégte lool di am yaakaar itam que ne dinañu def nañu dara tey jii lu am solo lu am njariñ pour askan wi loolu lu moo ñu fi indi woon tey jii ci Thialy Thiès encore une fois barab bi nga xamante ni mooy barab bi ñu jagleel suñu bopp ci suñu engagement politique di ko fësal ci ginnaaw président Macky di ko fësal également ci gunge gi ñuy gunge. engagement ak xalaat ak vision président Macky Sall bu mu am pour développer Sénégal